Euh, maa ngi jéggalu jullit yi jullitu àddina yëpp ma ci mës taseel nga woon ma gannaaw ma sànni la bët maa ngi la koy jéggalu waxuma ma wax waxuma ma def la waaye ma sànni la bët xalaat sama xol maa ngi koy jéggalu ndax loola ba jëf jëlaata ñaaw walla muy bon xalaat baa ko yées ndax moo ko fondement kon maa ngi jéggalu ñëpp di waat ci yàlla ci seen kanam ni yéenewuma kenn lu bon kenn ci àddina gisuma lu kenn am ba ma def ci sama xel ndax xam naa ni bu ci sama cër nekkee kii séddale na ma jox waaye ña ñi jox te laajuloo nga gërëm leen sant leen ñaanal leen yàlla ñu yokk yokk te yokkule yàlla sàmm leen mbokk yi man de maa ngi leen di jéggalu ngir jëmm yàlla maa ngi leen di jéggalu yàlla def ko seede si yu bërëm tabaraka wa taala wallahi am na loo kenn dama xawaatër yi nag di jaatin ñi kooku mën loo ko baare ni yiw wi di ñëwee ak mën nga ne bu fi kenn wax kenn ñëpp ne selaw waaye xel kenn mënu ko téye xel ngi maa ngi jégalu ñëpp maa ngi jégalu ñëpp maa ngi jégalu ñëpp li ma diggaa léegi yàlla it maa ngi ko koy jégalu di ko ñaan ci yërmandeem mu bañ ma topp dara boole leen ci yéen itam ah ñaan nag ñaan waxuñu santaane waaye ñaan